kii taxaw di wax nag mu ngi tudd Thierno Mouhamadou Samori Sow tey ji conseil économique et social environnemental la yow gannaaw sant yàlla julli ci rasulullahi sallallahu alayhi sant sumay waajur ak sumay sëriñ sant tamit sababu bi nga xam ne e, moo ma jàppale moo ma dimbale ba ma jàll tey jii ci conseil économique et social environnemental et depuis 22 janvier installation bi mu ngi def le 25 bi passé bon donc euh, c'est-à-dire bés bi c'était pour maanaam ñu mun nañ ko tuddee maanaam sargal bi su sargal la woon sargal na ki ñuy njëkk sargal mooy yàlla subhaanahu wa taala dégg nga moom la ñu doon sant di julli ci yonente am muhammadu sallallahu alayhi wa sant li nga xam ne moo ma entouragé ba yàlla jàllale ma tey jii loolu teg ñu teg ko ci suma mbagg eh, benn association bi ñuy wax APS eh, Eh, man organe la foofu la woon man maay président de région de Thiès bu APS. APS mooy lan eh, APS. pour la en savane. en eh, président cellule nationale bi moo nekk suma ginnaaw suma mag la moom gannaaw yàlla ak yonante bi moo mobiliser maanaam suñu kuréel bi wala suñu association bi ñu ne amul kenn ku ko war a nekk ku dul man. kon lu toll noonu teraanga bu toll noonu da nga war a nag bu jàllee eh, nga def benn organisation pour delloo leen jukkal nga sant leen gërëm leen mm. eh, bésu cant la woon eh, maa ngi sant tamit direction élevage ministre bi ci modestie bi yàlla def ci moom dalam ak teeyam ak mbaaxayam ak yaatalam ak jàppale bi nga xam ne mu ngi jàppale élevage bi gis nañu yéene bu rafet la am ci éleveurs yi li ma gën a moom kuy déglu ay nit la kuy diisoo la te nit ku suufeel boppam la moom it ñu ngi koy sant moom ak staffam yëpp ça veut dire bi mooy secrétaire général bi ak i directeur général bi ak i coordonnateur bi ak i mboolem ñi nga xam ne maanaam ñoo entouragé maanaam ministre bi bon euh, c'était encore pour sant maanaam mboolem éleveurs yi asso surtout association yi dégg nga parce que àddina euh, werante moo koy avance loo werante mooy mooy jëmeeloo addina kanam nit kenn amul maanaam ñëpp ànd ci yow ñii dañuy ànd ak lii ñii weddi ko kon ñii weddi ñi àndoon ak man ak ñi ànduloon ak man yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm parce que bu dul woon du seen organi yi candidat du du ñu namma candidat cinquantement maanaam élection di am cinquantement may jàll kon sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp loolu moo tax sànq wax naa ko ci pulaar mani la eh, bés bi mun nañ ko tuddee bésu sargal mais en même temps Eh, dama ci profité occasion pour mu nekk maanaam première sortie wala première rencontre ak éleveurs yi pour xam lan mooy seen doléance pour xam lan mooy seen problème pour xam lan mooy jooy yi nga xam ne éleveurs yi ñu ngi koy jooy ay jooy yu wuute ci ay barab yu wuute ci ay place yu wuute fekk loolu ci ñoom la bàyyeekoo directement ma déggal ko suma bopp ñu argumenté ko ñu def ko benn document maanaam parce niit so fekkee nga ni ko yow suma ndawal nga maanaam ma nekk interlocuteur diggante état bii ak i ak i yi eh, war nañ ma jox yóbbal nag li nga xam ne moom mooy seen problème problème yi nag wuute nañu parce que Sénégal 14 régions la cinq département la 500 communes la et eh, diwaan bu nekk dafa am réalité problème ñii problème ndox lañuy ñuy jàmbat ñii problème daay la ñuy jàmbat ñii problème parfo yi nga xam ne moo war a séparer E bu kii forêt classée yi pour maanaam foo bi bu amee mu bañ a am doole bon aki i vol de bétail bi bo donc bari na li fa nekk bari na li nga xam ne maanaam nekk na fa e loo xam ne lii du man maa war a taxaw waxal ko suma bopp lépp lu ma ci wax rek dafa war a war a tukkee maanaam ci éleveurs yi mu mu ñëw ci man e fi may demee fi ñuy diisoo fu ñuy waxtaanee fi ñuy càmbare affaire bi ma mun ko yóbbaale foofu baykat yi Ah, donc diggante béykat yi éleveurs yi eh, war nañu bàyyi xel eh, état bi war nañu liñ jàppale bu baax ñu ngi jàpp sax ñu ngi taxaw ci loolu depuis de années. mbooloo mi ah, maa ngi leen di sant di gërëm eh, Mouhamed Samodi mii ah, mu ngi sokkee ci ci benn kuréel bi ñuy wax APS APS mooy association pour la promotion de l'élevage au Sahel en savane foofu la sokkee ko nekk président régional bu Thiès. ànd ak ay mbooloo bu bari parce que moom moo occupé région de Thiès depuis ci mille neuf cent deux mille treize loolu yàgg na foofu la sokkee ko ba am conseil économique et social mooy bi mu jiitee nii bon nag ñu ngi sant APS parce que président APS nu mu tuddaat ci région yëpp ñëw nañ région yi APS yëpp ñëw nañ mooy région yi nga xam ne ñoo foofu la président yi toog wax dëgg yàlla eh, am nañu honneur bu rëy ci li mu def nii parce que day siggil Sénégal day siggil APS APS 16 pays la fukki fukki réew ak juróom-benn xam nga dafa rëy. Mhm. bon na lii bu ñu xamee ne itam Sénégal mu ngi développé comme ni APS mu ngi développé comme ni loolu sant yàlla la. bon nag APS yëpp ñu ngi koy sant di ko gërëm wax nañ ko tamit mu gën a téye APS. gina ommat APS ba APS itam ëpp ci biir réew yi yëpp ni ni ñu taxawee di mooy affaire opération tabaski bi war na ko toppatoo parce que am na ay jafe-jafe yu ci yu ciy nekk. Hmm. affaire daay bi war na ko toppatoo am na lu ciy nekk affaire conflit diggante béykat yi ak sàmmkat yi am na problème war na ko war na ci taxaw wax dëgg yàlla ñun. appel waaw ak sàcc jur gi loolu yëpp war na ci taxaw lépp lu ñu mën. man may président APS national international man maay euh, li waaw wax ci tour APS man may bendee man maa nekk président am ci ci APS wante léegi nekkaan na suma président ci associé mooy mooy kuréel bi mu jiite mm-hmm. wax dëgg yàlla daal lépp bëgg nañu mu taxaw ci mu siggil APS siggil Sénégal siggil ñi nga xam ne daal ñoo nekk ci gànnaawam yëpp ne pour maanaam problème bi nekk foofu moom parce que rivalité bu garaw moo nekk foofu te ñëpp baay nañ ko xel xam nañ ko te xam nañu tamit loolu warul nekk la parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañu ay carte d'identité nationale la ñu am ay sénégalais lañu ñoo yam fii droit droit képp kon c'est-à-dire su euh, fekkee euh, kenn ku nekk jox nañ ko ak akkam ak yelleefam rek yaakaar naa kenn du tooñ kenn euh, te baykat bi mooy sàmmkat bi sàmmkat bi mooy béykat bi donc normalement yaakaar naa problème warul nekk foofu. parce que ñoom mun na nekk sax ci seen xalaat wala ci seen jëfin wala ci seen doxalin boo gisee ñu boole ñaari direction yi. pour mun a yombal liggéey bi nga xam ne maanaam dafa nekk diggante éleveurs yi ak ak càmm bi te gis nañu tamit vraiment bu ñu gisoon ministre bi mu ñëw mu mu tëddee tëddeewul njaaxaan mu xaw a jëng ci côté maanaam eh, béykat yi bu boobaa munoon nañu wax ne ah eh, élevage bi de ñu ngi koy suufeel wala ñu ngi koy humilier wala ñu ngi koy ñu ngi koy saggane wala ñu ngi koy ñu ngi koy defam ñu ngi fuñ ko jàppee mais wax dëgg yàlla. gis nañu ministre bi ku fonk élevage bi la ku respecté élevage ku respecté éleveurs yi te gis nañu mu def fi benn modèle boo xam ne bi kenn mësu gis ci àddina mu jël fi avion spécial mu wàcc ko Fuuta dégg nga ci veille tabaski bi te kenn ku nekk xam na ren ci tabaski bi passé xar yi doy na ba des ministre bi loolu mooy objectif am donc ça veut dire mu ngi bàyyi xel éleveurs yi mu ngi leen di jàppale mu ngi leen di dimbale mu ngi leen di déglu mu ngi leen di convoqué ay réunion chaque di wéccante ñoom xalaat pour xam lan mooy seen problème lu lépp loo xam li war na leen jàppale mu jàppale leen ci loolu voilà donc yaakaar naa grosso modo eh, lii daal moo nekkoon bés bi ci fii ci cees lañ ko defee ci benn quartier bi ñuy wax maanaam quartier Serigne Abdoulaye Yakhine Diop wala nga wax ko Murit gi. musa Demba Asset Ba président cellule national lii di Sénégal. asalaamaaleykum mbooloo mi euh, maa ngi leen di sant di gërëm euh, Mouhamed Samodi mii euh, mu ngi sokkee ci ci benn kuréel bi ñuy wax APS. APS mooy association pour la promotion de l'élevage au Sahel en savane foofu la sokkeeku nekk président régional bu Thiès ànd ak ay mbooloo bu bari parce que moom moo occupé région de Thiès depuis ci mille neuf cent deux mille treize loolu yàgg foofu la sokkeekoo ba am conseil économique associal mooy bi mu jiitee nii bon nag ñu ngi sant APS parce que président APS euh, nu mu tuddati région yëpp ñëw nañ région yi APS yëpp ñëw nañ mooy région yi nga xam ne ñoo foofu la président yi toog mm. wax dëgg yàlla eh, am nañu honneur bu rëy ci li mu def ni parce que day siggil Sénégal day siggil APS APS 16 pays la fukki fukki réew ak juróom benn xam nga dafa rëy mm-hmm. bon na lii bu ñu xamee ne itam Sénégal mu ngi développé comme ni APS mu ngi développé comme ni loolu sant yàlla la bon nag APS yëpp ñu ngi koy sant di ko gërëm wax nañ ko tamit mu gën a téye APS gën a ommat APS ba APS itam ëpp ci biir réew yi yëpp ni ni ñu taxawee leneen di mooy affaire opération tabaski bi war na ko toppatoo parce que am na ay jafe yu ci yu ciy nekk affaire daay bi war na ko toppatoo am na lu ciy nekk affaire conflit diggante béykat yi ak sàmmkat yi am na problème war na ko war na ci taxaw wax dëgg yàlla ñun APS waaw ak sàcc jur gi loolu yëpp war na ci taxaw lépp lu ñu mën man may président APS national international man maay li euh, waa euh, wax ci tuur APS man may benn dee man maa nekk président am ci ci APS wante léegi nekkaan na suma président ci associé mooy mooy kuréel bi mu jiite mm-hmm. wax dëgg yàlla daal lépp bëgg nañu mu taxaw ci mu siggil APS siggil Sénégal siggil ñi nga xam ne daal ñoo nekk ci gànnaawam yëpp